juróom ñaar fukk ak juróom ñaar ni xolu yàlla mel asalaamaaleykum xarit yi ñuy déglu ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoon njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faw sunu mbégte rëy na lool tey ci li nu mën a dellu ngir dégtal leen seen émission bi ñuy wax yoonu njub. fépp fu mu mën a doon ci sunu gëstu ci mbind yonent yi dañuy gis ni yàlla ku sell la te mënula dékku bàkkaar gis nañu it ne yàlla du aji sell rekk waaye itam aji yërmande la te loolu lu neex lool ci nun ndaxte yërmandeem lanu soxla ndax nun ñépp tooñ nañu yàlla tooñ gu jéggi dayo sunuy moy ak sunuy bàkkaar lu ñaaw lool lañu fa kanam yàlla te dina ñu sànk ba faw sunu yàlla yërëmul te ji nag dañu fas yéene jàng ci ñaari léeb yi borom bi yéesu waxoon mbooloo ma ñuy léeb yoo xam ne dañu nuy jàngal ci mbirum yërmande ji fees xolu yàlla ak ni ko bàkkaarkat yi mën a jote ci léeb wu jëkk wi dañu ci gis ñaari nit kenn ki jotul yërmande yàlla te keneen ki jot na ko kenn ki ci tarixay pharisien ya la bokk te naka noonu ku farlu la ci ñaan yàlla di woor ak sàkk asaka di boroom diine ci bëti nit ñi ki ci des juutikat la te naka noonu boroom baakaar la ci bëti nit ndaxte juutikat ya ñu dëng lañu woon ca jamono jooja déglu loon kon léebu farisiyen bi ak juutikat bi nu ngi jàng ci linjilu luk mbind mi nee na waxaat léeb wi ñi foog ne jub nañu tey xeeb ñi ci des mu ne dafa amoon ñaari nit ñu dem ca kër yàlla ga di ñaan kenn ki ab farisiyen la ki ci des juutikat farisiyaan baa nga taxaw di ñaan ci xelam naan yow yàlla maa ngi lay sant ci li ma melul ne ñeneen ñi ciy des di sàcc di def du jubadi te di njaaloo rawatina juutikat bii ay bés gu nekk damay woor ñaari yoon di joxe asaka ci lépp lu ma juutikat ba moom maa nga taxaw fu sore te bëggula sigi sax xool ca asamaan sa waaye ma ngay fëgg dënnam te naan yow yàlla yërëm man miy bàkkaarkat yeesu teg ca ne maa ngi leen koy wax nit kooku ba muy ñibbi këram moom la yàlla àtte ni ku jub waaye du farisiyen ba ndaxte képp kuy yëkkatiku des na la suufeel te kuy suufeelu ñu yëkkati la lan la borom bi yéesu bëgg a jàngale jaarale ko ci lébu gàtt wi ci tënk yéesu doon na jàngale ne yàlla dina yërëm ñi xam seen njubadi fa kanamam te daan ñi foog ne ñu jub lañu moom la mbind mi wax bi mu naan yàlla day dàq ñi rëy di yiwal ñi woyof li nit ñiy fonk yàlla sib na ko yàlla mënula nangu mukk ñuy damu di xalaat ne man nit ku jub may julli damay woor damay joxe asaka damay dem jàkka damay dem église damay def nangam ak nangam ndax damay yooyu neex nañu yàlla walla neexuñu ko mukk xolu yàlla mënula sedd ci jëf yu bawoo ci rëy yàlla dafa sib xol bu rëy fàttaliku leen kayin taawu adama mi fexe woon jege yàlla ak pexey boppam ndax yàlla nanguloon na ko saraxam yàlla nangulu ko de te yàlla soppeekuwul nag ba tey xolu yàlla mënula sedd ci pexey nit ndaxte sunuy pexe matuñu ca kanamam li yàlla bëgg mooy nu ràññee sunu melo bàkkaar mel ni juutukat bi doon fëgg dënam te naan yow yàlla yërëm ma man mi bàkkaarkat ci xol bu toje noonu la yàlla di bég waaye sib na ñiy tëkkale seen bopp ak seeni moroom mel ni pharisien bi doon wax ci xelam naan yow yàlla maa ngi lay sant ci li ma melul ni nit ñiy sàcc di def lu jubadi te di njaaloo rawatina juutikat bi li pharisien bi ràññeewul woon mooy ca bés ba yàlla dunu méngale ak sunu moroom mi def bàkkaar wante yoonam wu sell wi te mat sëkk lañuy méngaleel yoonam bi nga xam ne moo wax ne ku sàmm yoon wépp waaye xëtt ci lenn ndigal rekk jàdd nga yoon wépp ndaxte yàlla mi ne bul njaaloo teg na ca it ne bul fen ku njaaloowul nag waaye nga fen benn yoon rek jàdd nga yoonu muusa te doo mën a dugg àjjana di jataayu yàlla ndax te mbind mi nee na dara du dugg lu am sobe mba kenn kuy sobu ci ñaawteef wala fen looloo tax doomi aadama soxla yërmande yàlla yow miy déglu nag ndax jot nga yërmande yàlla mel ni juutikat bi ci léeb wi wala ndax ba tey dangay fexe jub ci sa pexey bopp mel ni pharisien bi léegi ci jot gi nu dese danu bëggoon a déglu beneen léeb wuy wone ni xolu yàlla feese ak yërmande mel ni baay bu sopp ay doomam nu ngi wey ci linjilu lukk saar fukk ak juróom mbind mi nee na ay juutikat ak ay borom bàkkaar daan nañu jege ci yéesu ngir déglu ko farisiyen ya ak xutbakat ya di ñurumtu naan waa ji mi ngi nangoo nekk ak ay borom bàkkaar ak a ndoog ñoom noonu yéesu daldi leen wax léeb wi ne leen dafa amoon góor gu am ñaari doom benn bés jaat ma ne baay ba baay dama bëggoon nga jox ma li may wara féetewoo ci ndono li noonu baay ba daldi leen séddale alalam ay fan yu néew gannaaw ga caat ma fab yëfam yépp dem ci réew mu sore yàq fa alalam ci topp nafsoom bi mu sànkee alalam jépp xiif bu metti dal ca réew ma mu tàmbale ñàkk mu dem nag di liggéeyal ku dëkk ca réew ma kooko yebal ko ca ay toolam ngir muy sàmm mbaam xuux ya mu xiif ba bëgg a lekk ca ñamu mbaam xuux ya ndaxte kenn mayu ko dara mujj xelam dellusi mu ne sama baay am na ay surga yu bare te dañuy lekk ba suur man nag maa ngi fii di bëgg a dee ak xiif damay jóg dem ca sama baay ne ko baay tooñ na yàlla tooñ naa la yeyootuma nekk sa doom sax boole ma ci say surga mu daldi jóg jëm kër baayam waaye bi muy sorendi kër ga baayam séen ko yërëm ko daldi daw laxasu ko fon ko doom ja ne ko baay tooñ naa yàlla tooñ naa la yeyootuma nekk sa doom waaye baay ba ne ay surgaam gaaw leen indi mbubb mi gën a rafet solal ko ko te ngeen roof ab jaaro ci loxoom te solal ko ay dàll indi leen sëlu wu duuf fa te rey ko nu lekk te bànneexu ndaxte sama doom ji dafa deewoon te dundaat na dafa réeroon te feeñ na noonu ñu tàmbalee bànneexu fekk booba taaw baa nga woon ca tool ya bi mu ñëwee ba jub kër ga mu dégg ñuy tëgg di fecc mu daldi woo kenn ca surga ya nag laaj ko lu xew mu tontu ko sa rakk moo dellu si te sa rey na sulu wu duuf wa ndaxte ñibbisi na ci jàmm ci kaw loolu taw ba daldi mer bañ a dugg ca kër ga baayam daldi génn ngir ñaan ko mu dugg si waaye taw ba tontu baayam ne ko seetal ñaata at laa la liggéeyal mel ni jaam te mësuma moy sa ndigal waaye yow mësuloo ma sax may tef ngir ma bànneexu man ak samay xarit waaye bi sa doom ji dikkee moom mi yàq sa alal ci ndoxaan reyal nga ko sa luwu duuf wi noonu baay bi tontu ko ne ko sama doom yaa ngi ak man bés bu nekk te li am lépp yaa ko moom waaye war nanoo bànneexu te bég ndaxte sa rakk ji dafa deewoon te dundaat na dafa réeroon te feeñ na lii léeb wu neex la waaye li nu war a xam mooy lan lanu ci yàlla bëgg xamal gis nanu ci ñetti góor baay bi caat mi ak taaw bi baay bi ci léeb wi dafay misaal yàlla caat mi mooy misaal bàkkaarkat yi tuub seeni bàkkaar te wañu ko ci yàlla ngir jot yërmande taaw bi moom day misaal nit ñi foog ne jub nañu fekk dañu sore yàlla ci bu jëkk nanu xalaat tuuti ci caat mi toppoon nafsoon ci réew mu sore lu xewoon ak moom gis nanu ni mu mujj ràññee ni mu tooñe yàlla ak nit ñi amoon na naqar ndax ay baakaaram ba tax mu réccu ne damay jóg dem ca sama baay ne ko baay tooñ na yàlla tooñ na la yeyootuma nekk sa doom boole ma ci say surga noonu gis nanu ni caat mi dëddoo géttu mbaam xuux ya jëm kër baayam baay bi nag lu mu def ndax mere na doomam doomam ji nga xam ne moo yàqoon alalam ndax dafa ko boole rekk ci jaamam déedéet yeesu nee na waaye bi doom ja di sorendi kër ga baayam séen ko yërëm ko daldi daw laxasu ko foon ko daldi wax ay surgaam gaaw leen indi mbubb mi gën a rafet solal ko ko indi leen sa luwu duuf te rey ko nu lekk te bànneexu ndaxte sama doom ji dafa deewoon te dundaat dafa réeroon te feeñ na lan lanu war a xam ci loolu lépp mën na nanu xam ne yàlla sunu boroom dafa mel tembe ni baay boobu fees del ak yërmande yàlla dafa sopp bàkkaarkat yi te bëgg na leen yërëm wante mu ngi xaar bépp bàkkaarkat mu tub ay bàkkaaram te jaar ci yoonu njub bi mu tëral ci lu jëm ci taaw bi nag gis nanu ci lu doy taaw bi amewul woon xolu yërmande bi nekk ci baayam looloo tax mu mer bañ dugg ca kër ga te naan baayam seetal ñaata at laa la liggéeyal mel ni jaam te musuma moy sa ndigal waaye yow musuloo ma may sax def ngir ma bànneexu man ak samay xarit ndax dégg ngeen li taaw bi wax mu ne seetal ñaata at laa la liggéeyal mel ni jaam waaye li taaw bi xamul woon mooy baayam wutul woon doom ju koy liggéeyal mel ni jaam li mu bëggoon mooy doom ju ko sopp ci biir xolam te am bànneex ci def coobareem ba tey lu bari ci doomi aadama yi dañoo mel ni taaw bi ñu gis ci léeb bii jaami yàlla kese lañu teg seen bopp wante yàlla bëggul ñu mel ni ay jaam li mu bëgg mooy nu mel ni ay doom ci moom moom la mbind mu sell mi wax ci mbirum képp ku nangu yéesu Christ ni seen boroom ak seen musalkat kàddug yàlla nee na kon nekkatu leen fa kanam yàlla ni jaam bu ragal sangam waaye xel mi leen yàlla sol ay doomi yàlla la leen def ba tax nu di woowe yàlla abaa maanaam baay yow miy déglu nag nan nga jàppe sa bopp jaamu yàlla wala doomu yàlla nan nga gise sa bopp ci lépp wi nuy soog a jàng ndax caat mi ràññewoon tooñam ba jot yërmandey baayam nga niru walla taaw bi liggéeyal baayam mel ni jaam nga gën a niru yàlla bëggul nga mel ni jaam bu ragal sangam li mu bëgg mooy nga mel ni doom ju sopp baayam te am bànneex ci di def coobareem yàlla ku la bëgg la te bëgg na lool defal la yërmande waaye mu ngi lay xaar nga réccu te wañeeku ci moom loolu la yonent yàlla esayi bind bi mu naan naka noonu aji sax ji bëgg na lool defal leen yiw te mu ngi leen di xaar ngir defal leen ko te dina jóg ngir yërëm leen ndax aji sax ji yàlla ju jub la ñi yaakaar ci moom ñépp barkel nañu yàlla ngi lay xaar nga ñëw ci moom ni baay bi ci léeb bi doon xaare caatam mu dellu si ca kër ga yàlla dafa bëgg nga réccu ak xol bu toj te woyof soo ñëwee noonu ci yàlla te wut ko ak sa xol bépp li wóor péng mooy dinga dajeek yàlla ju am xolu baay bu fees dell ak yërmande waaye kuy rëy ba sàggane yërmande yàlla mënula yaakaar dara lu dul àtteb yàlla bu àndul ak benn yërmande jërë ngeen jëf ci déglu bi ci émission bi ñëw bu soobee yàlla dinañu jëm kanam ci liñ linjiil ba gis ni yéesu dekkale néew ba amoon ñetti fan ca bàmmeel ba yéen ñiy déglu nu ngi leen di fàttali na émission yi ñuy def yépp am nañu ci ay kaset ku leen bëgg am mën nga noo bind te dinañu la wax naka ngay def ngir am leen su fekkee itam ay téere ci mbind mu sell mi ñoo la gën a soxal mën nga nu bind nu yónnee la ay téere sunu adresse mooy yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu Ndiop BP 370 Saint-Louis bu leen fàtte def seen adresse ci mbind mu leer jërëjëf yàlla na leen yàlla barkeel te leeral leen ci lu ñu jàngal tey da ngeen fàttaliku li mbind mu sell mi wax bi mu naan yàlla day dàq ñi rëy di yëwal ñu woyof.